kon jël bi bàyyi na mbokk yi ñi ngi fii ci arène nationale Assane Ndiaye ci woo ci journée bu mag bi combat bi nekk ci digg géew bi diggante Diaw Star ak Boy Malaw ndeysaan ñoom ñaar ña ngay léewantoo Diaw Star ak Boy Malaw ndeysaan Boy Malaw moo ngemboo ngembulu ruus li Diaw Star moo ngembo ngembulu weex li def dërëj bi ci bopp bi moom lañ jàkkaar lool booy maalaw moo ñu wan ginnaaw ndeysaan cey làmb ndeysaan booy maalaw mi ngi bokkoo yëmbal mbooloo jaw star moom la ñu jàkkaar lool ñi ngi léwantoo ñoom ñaar ku nekk ngi ne tekk di déglu sa morom cey làmb ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi léwantoo jaw star booy maalaw ndeysaan booy maalaw ngay mépp ndeysaan Diaw Star Boy Malaw ndeysaan lamba gi ni di sunu sport national nga xam ne chaque dimanche ñu ñëw ci arène national bi ay cey Assane Ndiaye c'est la promoteur du continent ndeysaan di nuyu Libaas ma cameraman bi ndeysaan Diaw Star Boy Malaw Diaw Star Boy Malaw ku nekk ngi ne tekk di déglu sa day ndeysaan jaw star booy malaw ñoom ñaar ñu ngi leewantoo ci diggante jaw star ak booy malaw arbitre bi àtte na leen neen leen ngeen gaaw bëre bëre leen arbitre bi soufflé waat na jaw star ak booy malaw Daw booy Boy Malaw ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewanto Boy Malaw cokkaas na Jaw fayu na ndeysaan Boy Mawal Jaw Star Boy Malaw Jaw Star ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewanto waaye boobu léegi dara amagul Jaw Star Boy Malaw Boy Malaw cokkaas Jaw fay na a fooy mu daanu Boy Malaw door na Jaw Star mu daanu arbitre bi àtte na Boy Malaw na Jaw Star mu daanu daan na ko da ko mu daanu Boy Malaw door na ko mu daanu Boy Malaw loo wax Boy Malaw. barki Serigne Saliou. mais da nga préparé woon tur daal bi xanaa. dama koo waajal bu yàgg. deux combats yëpp kaw la def. waaw dóor mu daanu. foo jëm mu daanu dëgg la. waaw léegi yow léegi yow yow mu daanu koo bëgg dóoral mu daanu. wallaay Asim Abba ah, wax. du ma loo bëri barki sëñ Fall. waaw waaw mais foo jëm booy Malaw foo jëm. jooni bu bu wallaay Azim ak Ibra Fall. wallaay Azim moo jàpp si lamb ji. barke caatu montagne Moussa Guy gi. arbitre bi soufflé na waaye ñoom ñaar dañ ne tekk rek kenn ku nekk tàllal sa loxo kurpañ dalagul congo amagul caatu montagne Moussa Guy gi caatu montagne moo ngemboo ngemb lu xonq li Moussa Guy gi moo ngemboo ngemb lu ñuul li mbokk yi caatu montagne Moussa Guy gi caatu montagne daw na wuti ko Moussa Guy gi jël na ko jël na ko galgal la caatu montagne daañ na ko lay lay la la mais caatu montagne bëre gaaw na galgal la laa ilaaha illallaah caatu montagne eh xale bi mën naa bëre ah. xoolal li mu indi paate xoolal li caatu montagne indi kenn masul gis lii caatu montagne indi na mbooloo moo tax mu ñëw na tekk bëre bëre bi daan daan bi. Badou ak Zor Soubourse daa damm. Hmm? Badou Fall Zor Soubourse bi soufflé waat na. ñoom ñaar a ngi doxewaat wet uti saaku ya yéen ñaar taxaw leen bëri ay xale ngeen nañ bàyyi tappale yi waaye ay xale ngeen ñoom nañ ba ci saaku yi xanaa luñ leen tegtal la ay lamb Badou Fall Georges Bourse ñoom ñaar ñu ngi léewantoo Badou Fall Georges Bourse Badou Fall Georges Bourse ñaar ñu ragalante duñu sengoo bëre de Badou Fall te ay Badou Fall Badou Fall sor bursu Badou Fall am na lu muy wax arbitre bi de nan loxo yi Badou daa damu mbaamu koramp lu ko dal sor su ne jinne Badou Fall Source Bourse libaas Seydou Thioro Baye Amadou ak Rokhaya Laye arbitre bi soufflé na Badou Fall Source Bourse ñu ngi doxewaat wet uti saaku ya ñëwaat nañ ba ci saaku yi dëggal seen bopp sor su bur su badu faal ak sor su ak sor ak sor ñoom ñaar ñi ngi lewanto George Bourse cokkaas na ah George Bourse mu ngay xeex Badou Fall George Bourse Badou Fall George Bourse ñaari ndaanaan lañ ku ne kaawo nga <laughs> ñoom ñaar ñëpp kaawo nañ Badou Fall kaawo na George Bourse kaawo na bàyyi leen foofu rek bàyyi leen foofu rek waaw Badou Fall George Bush ñu ngi dem ja waat wet ñoom ñaar ñëpp ku ne jël nga kaawo Badou Fall George Bush ay lambo Badou Fall George Bush Badou Fall daa mel ni xeexkat la de ndeysaan Badou Fall sor subur su Badou Fall sor subur su sor subur su daa mel ni daa sonn a sor subur su sor su mi daa mel ni nekkatu fa de waaye mën na mën na bëri Badou Fall sor kat la Badou Fall daa mel ni xeexkat la daa mel ni pare na ci làmb ji de Zorso ngi miir de daa mel ni Zorso day miir Zorso yooru na ay waay Zorso Zorso yooru na Badou Fall Zorso bursu Djiné Camara Mady Libaas Badou Fall ak Georges Bourse Badou Fall Georges Bourse Badou ah, daan na la nax Badou yaa jaay sa combat Badou yaa jaay Badou yaa jaay sa combat. yaa jaay sa combat Badou. yaa jekk woon dem ba ci biir ñu daan la. ay waay làmb ngi nii. ah. ci biir combat bi daa mel daf la sonal ci xeex bi. du loolu xam nga waa bu dee xeex man képp ku ma xam ne man xeexkat laa mais tey dama ñëw pour bëre comprendre nga ndax dama fi bi ma fi mujjee la 4 avril dama fi door nit mu daanu. waaw yàgg bébé el voilà kon tey jii kii bu ma ko dooraatoon mu daanu gars duñ ma jël to nga première action bi nu mu demee voilà noonu la demee ko moo tax ma ne garaawul xaaral ma bàyyi xeex bi bàyyi bëre bi ñi aw ma seen fay ñii ñi ñoo may sagal ak Serigne Saliou bal ñaari ñax takk ko weñ ko mu toog non dama ko doon nax rek dama ko ko jàngee man man yàlla xam na ne ma la waxee fi ma jàngee bëre da ngay naan xam deg ba xam nga ñaata combat laa fa bëre. six combat bëre door laa bëre deg ba barke alxuraanu karim ba fi may wax ak yow nii mosuma daanu deg ba billahi wallahi yow Dakar fi bëre fi sept combat comprendre nga mbapat li ma ci deful amul billahi wallahi ñi mun nañ ma seede wala lazim nay mbooloo maa ngi yokku de waaw loolu lañ ñaan yàlla dañu ñu gën a ñëw xama muy loolu ay ndaw lañu rek dañuy jéem xama waaw muy loolu. pare nga pour bëre grand combat. waaw pare naa pour bëre tout man waaw pare naa daal man maa ngi nii waaw di sant ñu may jàppale la demee. ay jëmbër loolu la demee. Taxe Boy Pouye Taxe Boy Pouye Taxe Boy Pouye drapeau Basirou Ka Taxe Boy Pouye Taxe Boy Pouye ngeen jàkkaar lool Takké moo leen wan ginnaaw Takké Boy Pouye Takké Boy Pouye Boy Pouye Takké Boy Pouye door na Takké kor Takké kor na ko da door mu wàcc da koy door mu wàcc wala daan na ko Taxe daan na Boy Pouye Taxe jël na drapeau Basirou Ka Taxe jël na drapeau Basirou Ka Taxe jël na drapeau Basirou Ka moo ko doole waaw Taxe daan na ko Taxe daan na ko kaay Taxe daan ko dana ko rey waaw dana rey ki ma àndal di moom dana rey ki di lu muy def nii moom dana rey ki mandal di yaram wee yaram wee tàng